cette occasion may sukkandiku ci occasion bi di xamle ne dinañu amal ay assises ñeel industrie ak commerce mu doon bu njëkk ci biir Sénégal assises yooyee dina tax entrepreneur yi nekk ci biir réew mi ak ca biti réew mën a toog waxtaan ci li nga xam ne moom moo nar a doon ëllëgu industrie ñu nar a projeté wu nag ci fukk wala ñaari fukk at yi ñu jëm ngir saytu ci yan acteur la ñu mën a sukkandiku ngir suqali industrie ci biir réew mi ñu nar ci càmbar itam jaf jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci wàllu wi ñeel ci wàllum yoon ci wàllum finance wala sax li jëm ci wàllum impôt yi ñuy fay assises yooyee dina tax ñu leeral bëgg-bëggu secteur bi te itam amal ay recommandations ngir ñu mën cee sukkandiku samp ay politique publique yi tax ñu mën ko jëmee kanam